di nga am info yu leer ci people sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar nos plateforme d'information. sa relation ak Waly. Waly sama xarit la Waly kooku sama xarit la kooku kooku xam nga lan moo lan moo ma métti. Mhm. miin gi yéex a bi ma ko yéex a miin yéex yéex bi moom laa rëccu. nan la yéexee. non non. daal moom tey non non waaye dama ko doon romb rek moo may romb xam nga xaw ma woon li nekk si moom. dëgg la mais après bi ma bi ma commencé bi ma commencé xam di ko gis mu may gis daa commencé xam. kii kii kan la kii mooy kan. waaw kii. Mhm. ku baax la ku oyof la. koo xamante ne man sax dama naan si moom yenn saa yi dama ko si dama siy xool damay xool si moom yenn saa yi di def. waaw damay xool si si oyofam. Mhm. damay xool si baaxam. damay xool euh, moo tax ma ne euh, waykat yi. il faut ngeen di xool ci waale. lu tax waykat yi parce que waale dafa wàcc damay gis yenn saa yi booy yi dañuy génne benn single ak baar yi ba si kaw du ñu nuyu du ñu jël téléphone. di changer oh, doxin te benn single lañu am. nañu wàcc waaw changer koñ ku leen woo duñu jël mën nga leen woo fii ba gannaaw suba duñu jël téléphone. dëgg la la mhm. te génn single lañu am léegi ko imaginer ku ko ku benn producteur bu ko bëggoon a woo ne ko kaay ma defal la single du ko jot. ko jot kooku day découragé booy bi ci futi ah, kii liggéeyul xam la la mais Wally il disponible dafa disponible si boppam trop trop trop te taaw mayu ko ko. dëgg la xam nga la mhm. Wally su sañoon am na këram. am na mhm. im xoolal étage bu rafet la am. dëgg la xam nga su ko soxlaatul kenn. ni ñëwee koy soxla. xam na la su ko ku ko woowoon mën naa bañ a jël. mën na jox sax du am téléphone. Mhm. xam na la mais ku ko def ko nañ ko xool ci moom. dëgg la su bëggee café taxaw si kii u café yi. si waaw mooy affaire noonu pour pour yëpp lay taxaw. Mhm. jënd fukki dërëm café naan. xoolal eh, xoolal ay yooyu geste yooyu dama koy jàpp si moom. su bëggee sandis jël lekk si mbé kii sandis lekk si mbedd bi ah su bëggee dox dox du faale kenn moom yenn saa day mel ne sax dañ ko dañ koy day fàtte ni moom mooy waa yenn saa yi fàtte boppam. parce que ndax oyof wàccee boppam man yooyu daf maa ne loolu moo tax ma bëgg ko. ok man ku gën a wàcc mu gën a nekk sama xarit. tey ñu gis ni que da ngay fréquenté am xaritu moo gis nañ moo géej day yëkkati yenn duma xaritu moo géej de moo géej xam nga lan moo tax ñu xamante ok lan moo tax xalifa benn xaritam lañ taseeg laa taseeg moom Radisson te mu nekk fi instant waaw xalifa ah, ok xalifa yëkkati xaalis bëri may ma mhm. ne ma yenn saay yi na nga sànni ñu xeer mais garaawul ok rek wokku ma ne bu deel bàyyi mu sedd ma jékki-jékki mu woo ma téléphone ne ma mhm. euh, dama dama laa jàpp parce que da sa yaay ma ne ah, ah, ah, ma ne ko ok mu ne ma man ku bëgg yaayam. kii waaw danga may neex. jaaraat mu woowaat ne ma jaaral rek ñu waxtaan ma ñëw mu ne commandé lu la neex ma ma ne ko garaawul commandé wu ma ba tey. parce que ma wan la sama diim. ma ne ko loolu FC mais li may wax laa gën a soxla. ok fàtte fàttalu naa commande bi ba génn dem. mu ne ma kii ak kii bu si dugg xoolal kii mën naa mu am cofeel si yow kii mën naa am cofeel si yow bul bul kii su ma sañoon. nga teg lépp si suuf. xanaa waxoo ko yow defoo loolu. ma ne ko ma non non parce que gisoon na li ma daan dal ci kaw. moo yeeg yooyu naan kii kii wa ma ne ko non non c'est que so euh, dafa dafa mën a tooñ te tooñ baaxul loolu laa ko doon wax ne ko dafa mën a tooñ te tooñ baaxul loolu laa ko wax. mu mhm. noppi ma ne ok bul kii moo tax si leen si yéen léegi sax bàyyi naa yooyu. waaw ah, bàyyi naa ko garaawul parce que xalifa ñaan parce que xalifa ñaan na ma. teg mais noo gisee tey vidéo bu non non loolu dafa tooñ parce parce que mu Muhammad lañ ko tuddee sallallahu alayhi wa sallam te Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daawul tooñ mhm. ah daawul def dara dara lu ñàkk fayda mhm. kon nañ xool si poste dafa baax parce que moom li mu jugtee di teral di di daan di di di maye xaalis di teral nit ñi loolu yàlla di ko bëgg lu mu si dolli woon rek yàlla da koy gën a bëgg tu penses pas que ñoom ñaar ah ñoom ñoom si xam naa da dañu kii de rek dañoo yabante rek xam naa. Mm. mais su ma sañoon nag mu def vidéo jégalu ko loolu daf may neex trop. mu ngi def vidéo jégalu. waaw waaw waaw waaw da koy mais dafa dafa am damay ragal wala tamit mu ragal a fay xam nga soo ragalee fay waale ngay laal waale moom da mooy ñaaw yaay. moom su soo soo bëgg soo ragalee fay rek. moom ngay direct waaw moom ngay laal waa kay dafa mel fay mhm. nga laal boo boo waajee fay sax au moom moom ngay laal xaw yëkkati waat nit ñi xaw laa tudd. nga kiiwaat moom waa mel noonu mais du tontu waaw moom du tontu waaw. waaw même Matar suba teel tamit sama xarit la. waaw Matar sama sama xarit la man moom wax dëgg yàlla Matar sama xarit la tabax bi jox woon na ma jox ma xaalis yu bëri. Mhm. waaw ne jëndal xar ah Marcel Diagne tamit sama xarit la waaw dafa may defal lu bëri Marcel. waaw ñoom samay xarit may nitu bopp lañ. Mhm. waaw ñoom mais du ma leen ñaan dañuy jékki-jékki rek may ma woo ma may ma Matar day jékki-jékki su ma fa demee mu may ma xaalis bëri du ma ko ñaan. yenn saa yi ma dem si Marcel Marcel ak Mouta dañ may may xaalis bëri ñoom dañ maa yéene. moo tax du leen bëgg di wax sama soxla chaque jour. ñoom su ma leen ko su ma leen waxoon ne léegi fayal leen ma sama apartement jël at fay ko. xam na moo ma gënal ñuy fen. waaw am na ñoo xamante ñu bëri promotion lañ bëgg di fen. waaw dañuy fen rek dañ lay fen rek naan la ay lii naan la am na koo xamante ne fan yee la ma woo ma jour la international laa damaa bëgg nga jël appartement ma koy fay ak bitik. nga ñëw Dubaay benn waay bu a fen kay ma ma wax ko ko jël naa ko boobu laa ko gëj a dégg gars yi nga mën a pour nga leen di tudd jar na leen lu ne. dëgg c'est honteux. c'est honteux oh c'est honteux. nañ bàyyi yooyu nañ bàyyi fen. fen baaxul mbay ñu gis problème Baye Fall bi. Hmm. Euh, nit bu nekk rek bu sañoon tey du ñaan ba nga koy fësal. mais mbay nga nekk jeune di liggéey est-ce que yaa ngi denc parce que tey nattu du wees ñaanaluma la ko yàlla. Hmm. yàlla na la umpu mais natt du wees. Hmm. defe naa ni tey moom nee na lu mu dencoon yépp la jël def ko si feebaram bi. Uh-huh. ban jàngat nga ci am. non non Sénégal nooy dencee fii doo denc di yow nan ngay dencee yow appart studio yaa ngi nii seer. Ah? location location yi seer. Hmm. ndékki añ. sa yaay sa reer ah. ak yaakaar ak yow looy denc ku ne denc soo dee fay un million sax soo ne da ngay denc man dëgg du dëgg da ngay du ngay fen da ngay du doo dencoo dara waaye da ngay lëri nit ñi rek. y' a beaucoup de ñu fi nekk di di teg ci teel de denc ñu dara dañuy fen rek yoruñu duram moo tax soo leen ñaan yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi yàq sa wax bu leen ñaan dara bul ñaan jeunes yi gëm leen seen bopp gars yi Sénégal ba te et puis affaire kii si ay y' a beaucoup jeunes yi xale yoo xam jigéen yoo xam dañu naan damaa bëgg télé damaa bëgg feeñ télé jàng leen ku si yàlla may jàngal fii bi laay dañ lay tëddee wa tëddee wa tëddee ba nga kii def la def la càng ngay jaay sa bopp barki Sëriñ Tuubaa Hmm? promotion bi dañ lay rey billaahi wallaahi taalaay xoolal Baye nag foofu du ma sori Baye Fall saaneex la ñoom ñaar xartu benn batak bakkan lañ man foofu laa leen xamee. xuloo xuloo waale saaneex. non non ay xarit lañ de man sama man kooku waxuma ay sax ay waxam man. <laughs> Eh, eh, eh, kii man Baye Fall ngay wax. waaw Baye wax xam nga la. Mhm. wër na yàlla euh, kii man ki ma sekkal mooy Aziz Aziz mu si kii du tudd bu bu mu si tudd si Aziz sama Aziz sama xarit la. waaw ne touche pas Aziz waaw man loolu laa wax bu suñ koy duggati suy tudd Baye Fall suy tudd nay tudd ay ay Sanex ay ñeneen ak ñeneen mais bu mu si tudd Aziz Aziz sama Aziz la séeri say bu mu ko si tudd Aziz moo ma def li ma nekk man daf maa woon yoon mi ne ma yoon bee ngi ne demal faut pas bu ma gis daf may woone ma arrièral defal lii même génn inter internet yi sax génn ma ko bàyyi woon toogoon na ay at defatuma ko mhm. moo ma waxoon arrêté bi génn jotee dañu ma génnal moom si moom laay laay laay laay laay ordre mooy sama ordre waaw lu ma wax su ma ne télé bi fi mu nekk nii tey su ma ne woon DTV jóge fa ma jóge fa tey si guddi gi léegi waaw léegi léegi su ma ko waxee ma jóge fa waaw toog di ko xaar moom moom garaawul série avant da ko daan seytaan di si jàng di si jàngat wala da ko daan seytaan mën nga toog ak sa yaay toog ak sa papa toog ak sa mhm. frère nga seytaan ko mhm. mais gis na yenn série yi di daw tey da ngay am kersa sax di toog ak di ko seetaan noo gisee série man série yi seetaan man ay ñoom kii Soleil Levant laa daan seet man su may seetaan Soleil Levant laay seetaan dama seetaan xaw ma sax série yi ah maa ngi maa ngi leen baal samay fan sax xam naa am na yii am na ñu xamante ne waa eh, kii eh, kii waaw Marodi xaw ma waaw doonoon kii mooy évol eh, waaw kay seen tur bi sax xaw ma ko ñoom Billy sama xarit la rek si léegi rek mi may woo. ku baax la ku baax la edu sama samay fans lañ quoi ñooñu. Mm-hmm. mais bëgguma le mais man yenn saa yi Billy sax da koo xam. Mm-hmm. dafa ma naan booy tey li ba filmu xam nga loola mais après dama koy kari damay bëgg sax ñu may ay ay parties ma koy seetaan man moo ma gënal ak edu taalibe Cheikh la samay xarit lañ ñooñu. xam nga dañ samay fans lañ dañ maa bëgg suñ ma gisee duñ duñ amati sago. xam nga loola. Mm-hmm. ak ñoom keneen ki euh, Momo. ñooñu dañ maa bëgg torop ba fan yee passé doon nañu waxtaan ak man pour nga may dugg si série yeeg yooyu mais man man ni ko seet dama ko xaw a ragal. xam nga dara man maa ko xaw a ragal. ñëw na sax ki dañ may woo lu bëri même bi li barki dem woo ma di ma wax ko sëri. ok waaw démb sànq rek woo na ma ñaari appel damaa amagul jot mais xam naa si kanam tuuti naa ko woo sama xarit la. merci beaucoup waaw jërëjëf jërëjëf Ria kontaan naa yéen ñëpp ah euh, euh, di di ñaan sa bon d'arrivée à Feeling Dakar waaw bienvenue waaw bienvenue à Feeling Dakar euh, je je yen bi yal na yal na li lay yen nii xam naa li lay yen man xam naa Bamba xam na Duudu xam na Duudu nag nga yërëm ko dégg nga wàcc bees la ti dégg naa transfert bi dafa diis waaw transfert am dafa diis de Bamba ba suma xam ne Bamba ak Bijou dinañ def lii xaalis si si si si kii animateur te temps yi da ngeen gis de ay ndey géey ah Fatou oh. ah ak Big Taf te Bamba wax na ma dee na ma yeneen yoo xamante ne. mi ngi si yoon bi mi ngi si yoon bi loolu dafa garaaw <laughs> Bamba bul bàyyi de waaw te dégg na matériel yi ñëw. xaar ma noppi sax di nuyu ibaadu bi ah mention spéciale ah eh, eh, eh, kër su amee ibaadu day am yu bëri yoo xam ne yàlla du leen koy rusee moo gën bu dudu xam nga dudu sa saay-saay du dafa saay-saay ah mbuur da dëkk xam naa waa mbuur ay saay-saay lañ di nuyu sama grand bi ah di nuyu ñëpp vraiment waa Feeling Dakar mention spéciale émission bi neex na Ria merci beaucoup tey may la dalaloon seen émission Face à Ria fii si Feeling Dakar leen